Euh, olof bi mooy euh, ñu ngi leen di nuyu fi teew ñëpp ku nekk turam ak santam euh, di jël sunu ngërëm di ko teg si ngërëm li nga xam ne madame le maire Fat Diop di deuxième adjointe du président de la commission santé jiite li nga xam ne mooy comité de pilotage journée yi maire teg ko si loxoom ginnaaw ba mu leen gërëmee sant leen si turam ak si turu maire ak turu institution bi yëpp. ñu xamal ne li ñu jëkk li ñu li ñu fi dajale tey bokk na ci waajal li nga xam ne mooy ñaareelu euh, journée yi nga xam ne dañ ko jaglele euh, médecine maanaam journée médicale fii ci Thiès xam ngeen ne daaw si moment bi ñu toll nii defoon nañ ko li ëpp solo nag mooy maire ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu le bureau municipal mu le conseil xam ngeen ne euh, le 24 juillet 2014. lañ leen installé ñoom ñu jàpp ci seen taxawaay seen xalaat bu rafet ne ëllëg kon anniversaire bi ñu di ko def di jënd di yàq nañu seet lu ñor euh, population yi lu ñor askan wi ñu jéem a fexe ba loolu ñu am ay jéego ñu ci def pour marqué li nga xam ne mooy mandargaal seen anniversaire bi ñu leen installé loolu moo waral daaw ci moment bi ñu defoon première édition bi te mu nekk loo xam ne lii aussi. suñ koy xool si wàllu institution maanaam wàllu euh, maire yi masul am Thiès daaw moo nekkoon première édition dëgg la bari na ay journée de consultation gratuite yuy am un peu partout mais institution jox organiser lu mel noonu daaw lay soog a am si Thiès ren nag mu nekk deuxième édition ah daaw yàlla def vraiment euh, ñu am si résultat boo xam ne bi sax weesu na suñu njort ndaxte. Euh, résultat boobu li si ëpp solo mooy nit ñi ñëwoon doon faju si maanaam doon seet ñenn ñi doon seetlu seen bopp ndaxte euh, la nga xamee ne moom lañ xayma woon ne yaakaar nañ ne war nañ ko mën a jot weesu nañu loolu ndaxte deux mille cent personnes la ñu ciblé woon ñu dem ba deux mille huit cent defe naa mooy ñaari ju ñeenti junni su jumul wala juróomi junni ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer. Euh, loolu ñu am ko yemuñu rek si euh, xool nit ñi si bàyyi leen ñu dem dañ leen xool ba pare may leen ay garab képp koo xam ne kii rek si boobu euh, médecin gis na la ekkiti nañu garab may la loolu it ah maire def na ko bind na lettre dama ko si jokk bind na lettre gërëm ñi ko si jàppale woon si garab yooyu nga xam ne jox na ko doomu aadama yi yi nga xam ne ñooy waa cees ginnaaw bi si maire yi jëlee li mu si war a jël ndaxte am na ñoo xam ne ñu tey dañu taxaw pour jàppali gunge maire bi si lii nga xam ne maire daf ko taxawal te mu jëm rek si askan bi te muy nekk loo xam ne lu am solo la maanaam si wàllu wér-gu-yaram xam ngeen ne nit bu wérul góoma ne dina mën a def dara loolu nag nekk si moom li mu téye comme projet prioritaire yi mu am programme prioritaire yi mu am wàllu sant daf ko si jox doole bu baax a baax a baax ànd si ay naw ay naatangoom yi nga ne ñoom la bokk ñoom la waa Thiès dénk liggéey donc loolu mu am ren jii ñu ne comme am na du ñu ko bàyyeeti ndaxte population bi ñoo ko demandé exemple bu ndaw rek daaw am na mag moo xam ne nii ba mu jotee ay garabam dafa toog ne ndax lii day am weer wu ne ndaxte si mbir moomu la amee garab yi nga xam ne moom la ko bindoon te mos ko mos a bind loolu bokk na si di gën a touché maire mu ne lii góor góorgóorlu ba bu mu dagg bugg moo waral it mu ànd ak ay adjoint ànd ak le bureau municipal ànd ak les conseillers pour ren jii ñu defaat ko daaw thème bi ñu jëloon sensibilisation la woon parce que mu nekk lu am solo ren jii defe naa ne yéen journaliste xam ngeen ne bokk na si li nga xam ne tey dans le domaine de la santé bi sax laay wax bokk na si wàllu santé si actualité sante bi maladie chronique yi nekk na si lu am solo te maladie chronique du dara lu dul maladi boo xam ne dafa yàgg si nit ki yàgg bi mu yàgg si nit ki aussi. du tëb rek manifesté wu brusquement day nekk si nit ki di dox ndànk-ndànk yàlla baax na ba nga xamante ne am nañ fi benn spécialiste boo xam dans le domaine de la santé un technicien il est am na question yoo xam ne yi dafa jublu si biir mu war a gën a xóot moom ñàkkul dina si gën a mën a mais ñu xam leen rek ne maladie chronique yooyu tey dafa booy set même si àddina bi lu préoccupation lu nit ñi itteel la si euh, jamono ju ñu toll Sénégal it bu nekk fi di ngeen dégg ñu naan diw ah kañ la gaañu lu ko jotoon ñu ne AVC AVC du tëb rek daaneel dafay dafay dox donc loolu ñu wax ne ndànk-ndànk lay nekk si nit ki di ñëw noonu lay amee diabète it la même chose euh, non transmissible maladie chronique non trans presque benn benn wax bi la mais li ko ëpp solo mooy nga xam ne rek feebar la boo xam ne bi tey mënoo jël cancer di ko jox kii xëy na moom day am feebar bi mu nekk si moom bu law ba nekk loolu ñu gën si cible nag li nga xam ne mooy cancer hypertension artérielle euh, diabète ak. cigarette maanaam tux cigarette yooyu nekk na daal yi nga xam ne buñ ko xaymaa si àddina bi li muy rey si nit bari na lool kon mu war a nekk nag une préoccupation acteur politique waxatuma nos dirigeants ñu xool ne kon côté boobu war na si war a waxtaan loolu nag ñu organiser war si organiser panel boo xam ne mooy am fii euh, panel bi mën nañu wax ne am na si parce que boo jëlee maladie ñu wax ne cancer dégg ngeen ñuy wax le cancer du col de l'utérus te mu itteel suñu mbokki jigéen ñi bu baax a baax a baax loolu incha allah am na ñoo xam ne ñi dañ siy xalaat di si liggéey di si dox benn kuréel gu taxaw pour jàppale maire dina ñëw di bokk si ñi nga xam ne ñu animé panel ak ñeneen ñi nga xam ne aussi par rapport ak pathologie yi ñaan nañu ñu ñëw bu leen yàlla maye wér gi ak jot gi ñu ñëw man si gën a baaxee si seen xam-xam li nga xam ne mooy population Thiès bi teew ah don de sang bi si am parce que don de sang dafa nekk loo xam ne lii naa ne doomu aadama bu ne moo ko war Eh, ndaxte kenn xamul ëllëg damay wax ne banque la rek boo gisee ñu ne banque de sang mooy fay denc la rek fa ngay denc ne bu ëllëgee amaana dañ ko soxlawaat donc loolu bokk na si programme bi nga xam ne moo tëdde noonu mais daal maire xalaatam bi yëpp daal objectif bi ñu bëgg daal mooy euh, ñaari fan yi ñu jub muy le vingt neuf ak le trente ñu man see gis lu mat trois mille personnes maanaam lu ëpp lu ñu defoon daaw ñaanu yàlla def lu gën a yées loolu te ragal nañ aussi ak li amoon daaw. amaana ba ren ji dina sax ëpp lool vraiment nag comité de pilotage bi nga xam ne la coordinatrice madame Yacine Ndoye dafa am fu mu am fu mu dem fu mu ko yebal moo tax sax ñu bàyyi ma pour ma waxal ko si turam ak turul li nga xamante ñooy membre du comité bi yëpp te suñu adjoint au maire dirigé ko di ko piloté macha allah yal na yàlla jàppale loolu daal laa amoon lu may expliquer ci wàllu wolof ngeen baal ma. un Thiessois parce qu'on a d'autres occupations en santé. que le maire est en train de résoudre. Euh, pour euh, les malades référés, nous l'avons prévu cette année, nous allons, avec les, le service, un service social, s'occuper vraiment des personnes euh, que la mairie compte euh, aider sur le plan social, des malades qui sont tellement euh, déficitaires en soins de santé. Nous allons le faire cette année. L'année dernière, nous en avons fait, mais ce n'était pas beaucoup. Parce que vous savez, c'était notre première année. Notre première année, il y a eu des fuites. Mais il y a des malades qui ont été à l'hôpital régional et qui ont été suivis. Mais cette année, le service social de la mairie est en train de préparer ça. Nous leur avons demandé de préparer un programme de suivi. Que ces malades, vraiment nécessiteux, que ces spécialistes ont vu et que ces malades qui doivent être suivis. Comme l'année dernière, on avait une Je pense qu'elle a été opérée. Ça lui restait 15 jours pour devenir aveugle. a été opérée. C'est une vieille qui va très bien parce que son, son TAC comme là, son glaucome là était trop avancé. Euh, pour le SAMI, on est en avance. Le maire est vraiment en avance. Il est en train de pour parler avec. Euh, c'est son souci principal. Il en train de, pour, de parler avec euh, fonds. Ils sont en train de discuter ensemble. je pense que prochainement, si l'appui se fait, le maire a l'idée du SAMI social. Parce que c'est ça qui manque à Thiès. Avoir un SAMI social à Thiès est très important. Mais, ma foi, euh, ce qu'on peut vous dire, les premières années de consultation pourront régler beaucoup de problèmes euh, de la santé au niveau de la ville de Thiès. L'ORL, ne vous en faites pas, il y a docteur, euh, docteur euh, le, le, le, médecin de l'ORL de l'hôpital régional qui viendra cette année. Il de faire une liste de médicaments. Il, il nous a même demandé de faire une liste de médicaments complète pour l'ORL. Parce que l'année dernière, c'est ce qu'on avait. vient de vous le dire, on avait des problèmes en ORL chez les enfants, surtout les, les, végétations chez les enfants qui ont été opérées à la suite par leurs parents. Cette année, je pense que s'il est là, à côté, il pourra faire pas, mal de choses sur ça. Euh, je tiens toujours à dire, euh, le compte, c'est référé. Nous, nous référons. Nous avons les malades, nous les transportons, nous les référons au niveau de, des autres hôpitaux. Bon, pour la mutuelle et de santé, euh, je pense qu'on est sur le travail. Il y avait des blocages. mais le maire va en profiter avec le conseil municipal. Parce que nous, nous ne créons pas une mutuelle de santé, mais nous appuyons les autres mutuelles de santé. La mairie n'a pas prérogative de créer, mais il a les prérogatives d'appuyer les autres mutuelles pour que ça continue. Les appuyer comment Bon, ça dépend de, des besoins qu'on trouvera sur place et les formations qu'on trouvera sur place. Mais en matière de santé, ma foi, ce que nous venons de faire à je pense qu'on fait partie des meilleures mairies du Sénégal qui sont de le faire les deux ans. Voilà. C'est ça que j'ai dit. L'année dernière, nous avons référé quelques malades au niveau de l'hôpital. Il y en a quelques-unes qui ont été prises un peu en charge, mais c'était pas, il n'y avait pas un bureau spécialisé et préparé pour référer ces malades et pour les suivre. Cette année, je pense qu'avec le service social que nous allons créer, qui vont suivre les malades, ça va suivre. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Et nous l'espérons. Avec l'appui du sens. J'ajouterai d'ailleurs le Conseil a déjà voté dans le budget, euh, a mis des moyens dans le budget pour appuyer cette mutuelle de santé. Et nous, euh, la mutuelle euh, sera mise, euh, installée, sera installée en relation avec la couverture maladie universelle. Donc euh, il y a des contacts euh, qui sont en train d'être menés et il faut dire que le syndicat des travailleurs qui est là et dans cette dynamique accompagne le maire pour euh, vraiment la création de cette mutuelle. Et je ne veux pas m'aventurer dans les chiffres, mais je sais qu'il y a une prise en compte dans le budget, euh, l'accompagnement de la ville euh, pour la création de cette institution. Et de facto, ça va régler le problème de suivi des malades qui seront appelés demain à être transférés ou bien à, à bénéficier, qui sont appelés à pouvoir bénéficier des appuis de la mairie pour faire face à le, au de leurs frais médicaux. Bon, euh, il faut dire que l'année dernière, le budget global de ces journées était chiffré à 8 millions, à 8 millions 3 800 francs CFA. Ce qu'il faut retenir dans ces 8 millions, nous avons aussi, parce que c'est un budget, on raisonne en termes financiers. Donc il fallait, parce que dans ces 8 millions, nous avons eu des appuis en nature. Il fallait maintenant estimer ses appuis en nature, surtout en termes de médicament Mais pour être plus précis, il faut dire que au niveau des dépenses, en dépenses diverses, on a, on a dépenses diverses, c'est ce qui tourne autour de l'organisation, à savoir les bâches, les trucs, tout ce qu'il y a comme organisation, ça nous a coûté 1 818 000 francs. Achat de médicaments. Les médicaments nous ont coûté 3 513 300 francs. et les autres charges, à savoir la motivation, la restauration, vous êtes censé comprendre comme moi que euh, les spécialistes que nous convoyons, que nous convions à ces journées, la plupart restent leur, laissent leur cabinet pour venir nous rejoindre. Même s'ils le font bénévolement, on doit les accompagner, ne serait que pour le transport, d'autant plus qu'on les oblige à travailler le samedi. Donc c'est ce qui fait que donc, dans le cadre de la motivation, Dans le cadre de la restauration, nous avons, nos chiffres tournent aux environs de 2 millions et quelques. Mais ça, si on rentre dans les détails, vous verrez à l'intérieur qu'il y a euh, des accompagnements. Pour cette année, mais nous avons jugé qu'on ne peut pas faire moins que ça. Et ce qu'il faut saluer euh, dans euh, l'organisation de cette année, nous avons des partenaires de référence. je prends, et ça c'est un des résultats importants de la visite, euh, vous, l'avez, vous, la, les, vous les avez vécu avec nous, je pense bien que cette année-ci, Thiès a été l'objet, en tout cas c'est la cible, de, d'une bonne partie du corps diplomatique euh, installé au Sénégal. donc c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons eu, euh, pu obtenir de l'ambassade de Thaïlande un appui en médicament d'une valeur de 2 millions. Ça, c'est important. Et je pense bien, si je ne me trompe, et si des, des, son calendrier, en tout cas, confirme, l'ambassadeur sera avec nous ici à l'occasion de la cérémonie officielle. Nous avons aussi un autre partenaire à l'image de Madame Rose Vardini. Comme vous le savez, elle s'active avec son ONG dans euh, la sensibilisation et la gestion euh, du cancer du col de l'utérus. au-delà même de sa participation pour euh, ces journées, elle a pris l'engagement d'accompagner euh, la mairie pour la formation des, des sages-femmes à l'occasion de ces journées. Je pense bien que ça va être l'innovation même de taille euh, au cours des journées, qu'on puisse, dans la pratique, euh, encadrer et former euh, des techniciens de la santé en la matière. Ça, c'est, ça va être certainement l'innovation de taille. Nous attendons la faisabilité, en tout cas, euh, à l'occasion de ces journées. Mais en termes d'innovation, à retenir comme l'année dernière, cette année-ci, nous avons donc l'ONG de Madame euh, Wardini, ça s'appelle ONG Médusol International. Elle-même, elle va faire le déplacement avec euh, son équipe, pendant que les autres s'adonnent à consulter euh, euh, nos chers euh, épouses, sœurs et, et, et, enfants éventuellement et filles. D'autres seront chargés de gérer la formation d'un groupe de sages-femmes pour déjà les habituer à ce genre de pratiques. Donc, euh, nous avons comme partenaire, hein, il faut le dire, euh, ce qui était là l'année dernière, la région médicale de Thiès. Euh, nous avons le district sanitaire. Le, ils ont une présence physique et ils nous appuient aussi en médicament Euh, L'année dernière, euh, la région médicale nous avait appuyé sur une valeur de presque 700 de même que euh, l'hôpital régional. Il y a le national, il y Comité national de lutte contre le paludisme, le Comité national de lutte contre le sida, le CNRS, l'Association des pharmaciens de Thiès, euh, donc le Royaume de Thaïlande que vous venez de citer, et Madame Rose Wardini qui sera là. Donc, c'est des partenaires que nous avons. Et là, le programme national aussi de lutte contre la tuberculose. Donc euh, ces partenaires sont avec nous et il y a d'autres certainement qui se signaleront d'ici qu'on organise ces journées. Voilà. Euh, nous avons pris cette disposition en relation avec la commission médicale et on a pris les devants. Je pense bien que en principe, c'est même effectif. Les inscriptions ont commencé. Il y a un dispositif mis en place au niveau de l'institution et je pense bien que les messages qui, le spot radio euh, invite les populations à venir déjà s'inscrire, c'est pour éviter euh, vraiment ce rush-là et les bousculades à l'occasion. En tout cas, le, le, comité de pilotage, par rapport à ce qu'on ce qu'on avait eu l'année dernière, est en train d'améliorer de façon considérable vraiment l'organisation pour que tout le monde puisse vraiment se, obtenir euh, le pourquoi il s'est déplacé. C'est vrai, ça crée des problèmes souvent, mais nous avons quand même pris les dispositions pour mettre des tickets numérotés. Euh, mais il n'est pas dit aussi que tu as le numéro 1, que tu restes chez jusqu'à midi pour venir dire que je passe. Dès que le feu vert est donné, mais les spécialistes commencent à rappeler. Si vous avez le numéro 1 et que vous venez, vous trouvez qu'il y a 10 personnes qui sont déjà en place, mais vous mettez derrière. Ça, c'est vraiment des dispositions que nous, pour éviter ces problèmes que vous venez d'évoquer. Il faut aussi qu'on appelle, euh, dans le cadre même de ces journées, qu'on sensibilise et qu'on amène les populations à un changement de comportement. Vous voyez qu'aujourd'hui, à force, de, au niveau de Dakar, même, même ici à Thiès, les gens ne se discutent plus pour prendre un car. On les a obligés à, à, à être corrects et à suivre la queue. De la même manière, nous essayerons Avec cette année-ci, nous avons euh, la direction euh, de la surveillance urbaine qui gère des volontaires. Nous avons des volontaires, et avec l'appui aussi euh, du groupement mobile euh, des sapeurs-pompiers, avec l'appui des partenaires, on a oublié de les citer, mais ils sont dedans. Avec l'appui aussi des éléments de la Croix-Rouge, nous allons nous organiser pour bien gérer euh, l'accueil et l'orientation par rapport à ces différentes spécialités-là. Groupe 2. Ah non, non, non, non, non, Là, je vous, rassure, euh, le maire, depuis son installation avec l'équipe qui l'accompagne, interdit toute activité politique ici. Lui-même, il se condamne par rapport à ça. La mairie n'a pas de couleur. Il pas de... quota. Il pas. Non, il n'y a pas de quota. <laughs> Les, les, les, premiers venus, les premiers venus seront les premiers à être consultés. Voilà. Birahim Diaw. 2010. De 800. Bon, nous l'avons, mais on a voulu être aussi modeste par rapport à nos moyens. C'est important quand même. Bon, euh, il euh, y a les moyens, il y a le climat, le temps qu'il fait. mais nous avons mis 3000. Nous avons voulu augmenter, on ne va pas être, euh, prendre des, des, des objectifs démesurés. On était à 2800, on s'est dit, bon, on augmente peut-être 100, 150 pour voir. Et ça, ça nous a permis quand même, bon, euh, on verra cette année avec les spécialistes qui vont être là. On verra aussi avec la présence, en tout cas, déjà à l'entame avec les inscriptions, nous aurons une idée euh, Mais les dispositions sont prises pour gérer quand même ce surplus si vraiment nous trouvons, il y a des demandes qui sont là et que nous n'arrivons pas à respecter, je pense bien qu'avec le comité et toutes les structures sanitaires de la place qui ont pris l'engagement de nous accompagner, des dispositions seront prises pour que ces personnes-là quand même euh, puissent être orientées et suivies au niveau de ces structures. On va gérer quand même le suivi euh, par rapport à cette demande-là éventuellement. notre diabase. Ah, s'ils se déplacent, ce n'est pas à nous d'aller les chercher. Hein? Nous, on ne cherchera pas à connaître qui vient de notre diabase ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avons devant, le médecin aura devant lui un patient, un tiers C'est la région qui va être consultée. <laughs> Voilà. <laughs> je vous laisse, je vous laisse avec le, le technicien de santé